salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi déglu nañ kàddu yi nga xam ne commandant boobu xam na commissaire hmm, wax na ko ak li sëriñ xam satu tontu xam naan daal li ma jàpp ne moo ci tane mooy la moo doon wax ca gannaaw rek ubbi woon nañ fi waxtaan waxtaanu mel noonu moo xam ne jéego yi ñu war a dox mooy fexe ba dëkk bi am statut spécial dëkk bi ci boppam suñ Tuubaa ci moom day spécial kenn la ci jaami yàlla yi koo xam ne suñu borom da koo jagleel ayib ak itlaq sëñ bi suñu borom da koo goreel boyal ko may ko loo xam ne mayu ko kenn loolu day feeñ ci léppam ab dëkkam njabootam doxinu yoon wi doxinu lépp. Euh, loolu nag damay jàpp ne buñ dëkkee ay nit ci réew mi am gouvernement bu fi ne li ma jàpp ne moo ci tane ñu ànd xool bind niñ bëgg ne ni la dëkk bi war a doxe teg ko ci loxol sëriñ bi won ko ko ndegam sëriñ bi maye na di déglu ñëpp sëriñ bi woolu ministre de l'intérieur wala mu woolu président ku ci ne loo doon doon kilifa sëñ bi si kilifa mu wax ko ne ko lii laa bëgg ci dëkk bi nii laa ko bëgge boobaa buñ ko watee teg ko ci yoon signé ko nga xam dañ ci am droit kenn doo amati loo wax waaye statut spécial ci lépp dëkk bi dañ ko war a def dëkk bi yëmut teg benn dëkk sëñ Tuubaa yëmut ak kenn kon dëkkam bi statut spécial dafay mën a ñàkk te statut spécial yii yëpp ci lay dugg ci biir booba ndax la Abdou Diouf seqoon ak Sëñ Abdou Lahad ba nangul ko lii te tegu ko ci yoonu tubaab waaye da koo fekk ci bëggam nangul ko ko loolu dafa war a doon liñ naan continuité état continuité waaye binduñu ko woon mbindiin woo xam ne daa ne ci biir luwaay ba sax fi ba ko dikk mën ko wéel lu mu ko mayoon ngir ñu seq ko rek la mu nangul ko ko loolu yi nag la ñu war a fexe ba mu jeex benn yoon bind ko mbindiin wu wér. mu ne ci institut spécial bi ak yeneen yi nga yu mel ne moom yeneen yooyu dafa bari dafa bari ci dëkk bi loo xam ne dañ ko war a waxtaane sañ-sañ yi dëkk bi war a am jagle gi Sëñ Tuubaa am tam war a feeñ ci dëkk bi lépp ñu ànd def ko ci institut spécial muy la leer nañ nga xam ne ku dikkati fekk ko fi kuy demit ba fi loolu daal laa jàpp ne moom bi lu ñu war a ànd waxtaane ko la ñi nga xam ne loolu seen weta ñu ànd xalaat ca tënku ko bind ko ci arab bind ko ci français dem te gaaral ko sëñ bi mu gis ko waaw loolu daal jàpp naa ne mooy farata ji moom lii daal àgg àgg na fa mu jëmoon nag lii daal ëpp nañ loxo waaw ñëpp la naqari ñëpp la métti ndax wax yi mu ñàkk nay teggin ñàkk na kersa te itam dëkk bi moom képp kuy doxantu rek boo doxee tuuti da am loo naqari gone yi ñàkk nañ kersa ñàkk kersa goo xam ne nëbbatuñ dara dara ci li ñuy def col yu bon ak football boo xam ne daanaka foo aw sax bal bi boo yeexee mu ñu dóor la ko moo tax nag fii nii nii moom taxawalaat bu wér wér safinatu la maan dooleel leen dooleel xuddaam waaye loolu lépp nag nañ fa kayit yoo xam ne moo koy lal yu wér a yoo xam ne ci statut spécial dëkk bi lañ koy teg ba boobaa benn policier wala benn gendarme du mën a wax dara ndax boobaa yoon da leen koy may ci seenu yoon ñoom gannaaw bi ko suñ yàlla mayee suñ suñ tubaab ba noppi ñu ñu firndeel ko ci seenu yoon ba duñ ci mën a gi dara waaw noonu daal laa gis ne moom mooy farata